nataal juróom ay at yu bari wees nañu ay nit ñu bari judduwaat nit ñi dëkk ni ay géer ci biir àddina amoon na nit ku ñuy woowe Ibrahima Ibrahima bëggoon na yàlla yàlla tànn Ibrahima ndax mu def ci moom lu kéemaane yàlla ne ko xoolal ci jaww ji nga wàññi biddéew yi bu fekkee mën nga ko yàlla ne Ibrahima say doom tamit Ibrahima wóolu woon na yàlla te wóoroon na ko ne yàlla dina def li mu ko dig waaye saara jabaru ibrahima mënul woon am doom mosul woon am doom te ibrahima ak jabaram saara demoon nañu ba màgget te saara gëmul woon ne mënati naa am doom waaye ibrahima di wéye gëm li ko yàlla wax ne loolu lu mën a nekk la ndax yàlla mënoon na leen joxaat doom benn bés ni ko yàlla dige woon saara jur doom bu góor ibrahima ak saara tudde seen doom isaaxa isaaxa mooy doom bi yàlla dige woon ibrahima yàlla tànnoon na ibrahima ndax mu doon baayu isaaxa te yàlla tànnoon na ibrahima ak isaaxa ndax ñu doon ay maamu yeesu kirist musalkatu àdduna si bi waroon a ñëw ci ay jamono yu yàgg yeesu moo doon doom bi yàlla dige woon àdduna bi yépp